kuréel ahlu xidma ndayu daara yi seenub liggéey di taxawu daara yi ak fexe jële fi yalwaan gi ñu doon amal jotaay boo xam ne dañ doon séddale jëwriñ yu jigéen yi di ndayu daara yi lu toll ci ñetti téeméeri bool ginnaaw juróomi téeméeri bool yi nga xam ne jotoon nañ leen ko jox ci journée sociale bi ñu doon amal ci fan yi waa tey yaakaar naa liñ jënd liñ liñ complété ci ay bool 300 300 bool la lu ñetti téeméeri bool keroog am na luñ jotoon a génne yaakaar war naa mat 500 bool mbaa lu këpp mooy keroog ca jour ba waaw waaye tey jii tamit jëndaan nañ trois 300 bool yoo xamante ni ngir complété lim bi nga xamante ni maa ngi ko loolu mooy li li warul la ndajam tey mi ak saabu yeeg euh, nu mu tuddati madaar yeeg omo yi loolu lañ ñëwoon tey doon ko complété muy ñi nga xamante ne amuñu woon ay bool ñu jox leen ay bool ñi nga xamante ne amoon nañu ay bool te jotuñu woon jotuñu woon leen a jox saabu ak madaar ak yooyu ñu jox leen saabu ak ay madaar ndax ñoom seenub liggéey dafa nekk liggéey bu yaatu yamuñu rek ci tibbal donga yi ay kii maanaam ay bool waaye dañ ciy boole di leen fóotal kon loolu moo taxit saabu yi nekk ci lu am solo ak madaar yi. bool yi nga xam ne moom lañ jox jëwrinu soxna yi sabab gi mooy buñ demee ci koñ yi nga xam ne moom lañ dëkk ñu séddalewaat ko ci kër yi. ngir bu ñu toggee ñu mën a tibbal daara yi nekk ci koñ ba ci tibbin wi gën. tibbin wi nag dañ ko bëgg mu nekk tibbin woo xamante ni wu sell lay doon. comme niñ daan baaxoo dongo bi ñëw ñu jël ay des ak ay yax ak ay macaat ak yooyu dañoo bëgg mbir mi ñu sellal ko ndax suñ boroom dafa nekk ku sell koo xamante ni lépp lu muy nangu rek lu sell la te suñ borom daa wax ne lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun nit ku du am ak mbaax lu dul ne daa xool lam gën a bëgg mu joxe ko léegi nag looloo tax nag bool bool yi nii gis ngeen ne bool la yoo xamante ni yu mucc ayib la kenn ko nekk war nga cee mën a sax tibbal sa sëriñ añ kon moo tax dañoo bëgg ni ngay tibbalee sa sëriñ añ defar ko ba mu jekk noonu lañ bëggee boolu daara ji moo it nga tibb ko ca waxtu wa nga xamante ne ca ngay tibbaate waaye doo bàyyi ba tibb ba doo bàyyi ba tibb ndab yi ba añ ba desal doo ko tibbal doo nga bi déedéet dañoo bëgg kii tibb waxtu wa muy tibbaate na bi mu teg boolu dong bi tibbaale ko la ca war a dem yëpp mu dem ca su ko defee dong bi su ñëwee jël ko daal di yóbbu ca daara ja ndimbal la ci fekk loxol borom xam nga junni bool i xaalis la ñett téeméeri bool yi xaalis la omo yeeg saabu yeeg yére yi lépp xaalis la mbooyam lu ñu ci mën xaalis la ndax lim nañ wax nañu wax nañ ni lépp lépp jege na 3 millions 3 millions yi nag bu ko fekkente doon kii koñ bi def na ko koñ bee def ko koñ bee def koñ bee def ko maanaam wàllu yalwaan moom dafi dana fi dana dana fi dana fi néew lool yalwaan mënut a ñàkk waaye na néew. daara yi nooyal xel yi borom kër gi borom kër gi nooyal xel waa kër gi yëpp ba kenn ku ne nangul ni ba kenn ku ne nangul nii koñ ba ma nekk kat daara sangam ak daara sangam ak daara sangam ak bool sangam ak bool sangam maa ngi koy tibb ci ci ci ci def ko te yàlla daf tax ba nga xam ne day law ba nga xam ne yalwaan moom mi xam ne dañ koo bëgg nga xam ne xam ne mën ñu ko ñàkk may def mu néew lool lool lool lool lool lool lool ñu ngi ndokkeel nag suñu Abdou la Jaxate mi nga xam ne moom moo tambali liggéey bi di ci njiitam ci njiitam la alxuraan wax na ko waxul ihmaloo fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu ana ñuy jëf te yàlla rek tax te lii boo xoolee dafa dafa nuru lu nekk bànneex waaye aw sas la lii aw sas la ndax kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara waaye de boppam. soxna yi nga xam ne nag ñoom lañ séddale bool yi ñuy jëwriñu soxna yi nekkee ci quartier yi ñoom nee ñu fas nañu yéene bu ñu àggee ci quartier ba séddalewaat bool yi te it ñaax nañu bu baax seen mbokki soxna yi ngir ñu gën a yokk taxaw ndongoy daara yi. ndax ñun yaay daara lañ di jàppale dongo yi ci maanaam pour ñu leen dimbale ci ñu bañ a yalwaani bool yi bu ñu àggee nii damay wër kër yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak daara yi te ñoom nag ñu déggoo ji ak seeni borom kër su ko defee ñoom ñu déggoo ci ak seeni borom kër yi nga xam ne bu ñu xëyee ñoom ñoo joxe dépense ku koo xam ne soxla nga bool ma jox la bool su añ jotee nga tibb añ bi nam baaxee yóbbu ca daara ja su reer jotee nga tibb reer bi na mu baaxee yóbbu ca daara ja bu ndékki jotee nga tànk sa kafe yóbbu ca daara ja léegi soo ko defee lu mat fukki kër mu nekk fukki bool yoo xam ne day dem ca daara ja yaakaar naa bu yàggee dongo yi du ñu yalwaan ndax dongo yi sonn nañ ci yalwaan yi te liggéeyal daara liggéeyal yàlla la te arfaa rek a nekk nan gën a góorgóorluwaat soññ sunu moroomi jigéen ñi mel ni noonu ñu góorgóor def ne noonu su ko fee yalwaandutu am ndax xale yi yalwaantuñu sax gaa moom yalwaantuñu bareetul waaye dañuy gën a góor def tibb bool bu baax comme ni ngay tibbee sa boroom kër bu nekkee ci kër gi ni nga koy tibbee ba mu baax nga ub ni ko kaay yenu yóbbu su ko mënta yóbbu boo amee ko la ko nga dem yóbbu ko waaye noonu sunu donga sax ñoo koy jël si te ñu sàmm bool yi bu baax nag itam góorgóorlu ci dong yi di leen fóotal di leen jox ba suur di bale fi ñuy nekk ba duñu tilim duñu salte lu xidma di kuréel goo xam ne day liggéeyal yàlla ci alxuraanul karim di taxaw ndongo yi ngir ñuy bañ a am benn tumuraanke ci daara ji alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla defal na leen tawféex defal na ko ñu bokk ci ñiy teral njabootu ko alxuraan kon sañ nañu yaakaar bu baax a baax ne bu ëllëgee suñu dëkkuwaay mooy biir aljanna yàlla nañu ko yàlla defal te moom la Serigne Touba mbaax mi waxoon ne bu ëllëgee yowmal xiyaama ba ñu nekk ca tartar ya ak tiis ya kenn ku nekk sa bopp doy la sëkk li kulli imri'in minhum yawma isin sha'nun yughnihi ba ci yonent yi kenn ku nekka am nga loola doy ba mu des Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku gis sab sëriñ daw ku gis sab taaliba daw ku gis sa baay daw ku gis sa yaay daw ku gis sa soxna daw ku gis sa borom kër daw ngir àq yoo xam ne wóor na la mataloo ko woon sa digganteem ak ñoom te bëggoo li nga yor dara jóge ca su boobaa tar-tar yooyu ak tiis ya dana am aju woote ju woote ci ndigalal borom bi ne ayna ahlul xidmati lil muslimina ana ñi daal liggéeyal jullit ni su boobaa nu ne ko noo ngi nii mun daw dugg àddina ci lu kaa ci lu ënt benn coono. liggéey bi nag lees yaatal la ku ne mën na cee tàbbi ngir bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoŋal nekk nu ndongo daare ci daare alxuraanul karim yi.